Mamadou Niang maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay madame Moreau. Mamadou nga nekk euh, meunier de formation responsable production lu toll ci fukki at ak euh, juróom euh, lan nga ñu mën a wax ci menace bi nga xam ni boulanger yi ñu ngi koy def pour état bi bàyyi leen ñu yokk mburu mi ndax ak seeni jafe-jafe loolu ban analyse nga ciy def en tant que koo xam ne mëñee nga woon. Euh, maanaam Moreau maa ngi lay nuyu di la gërëm di la sant si euh, question boobu analyse bi nga def su ma déggee sama mbokk boulanger yi sama mbokk gayeen boobu Amadou damay euh, damay am benn sentiment bu mu met benn sentiment de nu mu ko mën a waxee mooy dama dama xam ne ñoo xamante ni ñu ngi nekk si benn secteur boo xamante ni ñu ngi ko seexal xamuñu ko ndax boulanger yi actuellement ñu ngi naan dañuy dem si gouvernement bi pour mu wàññi leen TVA wàññi leen bi wàññi lu mu war def defuñu ko. lu nu war a wax waxuñu ko lu nu war a wax mooy il faut ñu xam que Sénégal à part ceeb ceeb sax nañuy importer presque un million de tonnes mais blé bi ñu ngi importer presque huit cent mille huit cent cinquante mille tonnes de blé mu toll loo xamante ni mat na plus de cent cinquante milliards voire même cent soixante milliards euh, ku wax mburu da ngay wax blé blé bi nag dafa nekk loo xamante ni. jamono juñ toll nii bu nu continuer nii dina dem ba importer presque un million de tonnes par an euh, état bi nag daal di xëy ni comme dafa am problème mu Ukraine ak problème mu kii euh, problème mu Russie période boobu ma décrier sax ni bale bi ñuy indi fii Sénégal jógewul Ukraine jógewul Russie France lay jóge Port de Rouen lay jóge ak Pont La Palisse dem naa ba si ay télé wax ko mais dégguma parce que yàlla dafa def ñun suñu baat tollul déggu ñun ñu dunu mën a dégg su loolu état bi daal di jël cinq pour cent daal di wàññi tax daal di dindi taxe douanière bu mu nekkoon si blé bi donc blé bi day ñëw cent cent cent cent dollars blé bi ñu tegbil ko suñu jëndee suñu defaree seen farine ba pare ñu tegg leen seen TVA bi état bi aussi daal di jël lu mat presque deux milliards di ko jox chaque jour ñuy defar farine mais ana boulangerie boobu léegi boulangerie yi nu leen def dal leen ni léegi yéen da ngeen yokk mbur mi boobu ma ma ma décrier ko ni ko juróomi juróom yi ñu ci teg du yoon parce que boo xoolee juróom dërëm yooyu ñuy teg xaalis bu bari la état bi neen day joxe soixante milliards par at mais boulanger li ñuy li ñuy euh, Sénégalais li muy li muy souffrir ci ëpp l'amendement lu tax euh, onze millions de baguettes la ñuy def fin la ñuy def onze millions de baguettes de pain la def par année par par par par par par onze millions. mais baguette bu nekk ñu teg si juróomi dërëm loolu ñaata la si xaalis ba nu xoolee at bi rek ça fait plus de cent milliards loo xamante ni population bi ñoom ñoo koy jox ñuy defar mburu mi ñooñu tey bu ñu dem si yokkaat day gën a métti day gën a métti blanc day gën a ci population bi lu mën a def mooy wàññi prix farine bi farine bi lañu war a wàññi ndax lan ndekkumba bu ñu waxantee dëgg. Hmm. farine bi wàññeeku na bu baax. ah bon farine bi mi ngi doon jar période bu naan dañ ko doon yokk cinq cent euros par ton ñu ngi doon naan cinq cent euros mën na à peu à deux cent soixante quinze mille francs par mois deux cent soixante quinze mille francs par tonne tey ñu naan deux cent tonnes lay jar ba si suba ba mu ko xoolee blé bi mi ngi cent dix dans deux cent dix euros par tonne mën na à peu cent cent dix mille lay jar à cent vingt mille francs par euh, par si loolu bu nu xoolee loolu war nañ mën a tax kon ñu mën a wàññi. prix prix prix prix prix prix farine bi pour boulanger yi mën nañu gis seen bopp teg si état bi lu mu def dafa dem ba port autonome de Dakar jël ay magasin jox leen ni yéen yéen kon yéen ay meññee yéenay dugal euh, blé bi jox leen blé bi loo xamante ni sax waa Sonacos amuñu ko ñuy jël blé bi di ko indi seen biir usine te duñu fay dara teg si encore ñu siy liggéey. boo demoon daf leen enquête ngeen dem xool ñu si liggéey amoonu si dara boo demoon tey ñu liggéey si secteur boobu ñoo si gën a sonn état bi daal di jël euh, nii kat aussi yéen ma ñëw d'accord naa leen bàyyi na leen ngir ut seen ay groupe ñu dem ut seen quatre groupe yoo xamante ni dina dem hauteur de cinq mégawatt ñoo xamante ni ñoom dina seen propre courant électrique lañu du duñu sax utiliser Senelec subventionné leen seen carburant bi te ma leen di fàttali aussi xam nga pour defar euh, farine da ngay utiliser ndox mu bare. à hauteur de 16 pour cent da nga si uti ndox mu bari gis nga farine boobu gis nga ndox moom aussi dañ leen ko subventionné loolu yëpp mu defal ko meunier yi tamit yaa xeetu mu laay ñoo war a wàññi seen farine bi bu nu wàññi seen farine yi yi mën a gis seen bopp. kon daal loolu yëpp mm-hmm. ñoom ñoom ñoom teg si encore nga baal ma foofu seen vente yi même ñoom pour ñu jaay bu ñu defee seen farine ba pare ñoom ñoo am seen propre magasin di ut seen ay propre nit ñoom ñoo koy jaay man nekkoon naa si magasin yooyu. ñu leen di ñu koy jaay ay milliards lañuy jaay ñu leen di fay ay sommes yu dérisoire te boo xoolee ñu si usine ñu si liggéey barewut loolu yëpp ñoom ñu koy def mais ñoom ñoo war a mën a wàññi fariñ bi te fariñ bi actuellement ni war nañ ko mën a wàññi ba douze mille ba treize mille ñu ngi koy jaay vingt mais loolu nan la ci mën a boulangerie mën a gis seen bopp donc pour ñu mën a problème bi mën na si il faut impérativement meññee état bi taxaw ñu leen kon da ngeen wax ne da ngeen sonn mënu leen dem dañ leen yokkal dindi leen seen taxe dindi leen seen lépp tey ñëpp xam na ni mën ngeen dem da ngeen war a wàññi seen fariñ bi état bu dindee ay bu delluwaatee ay taxes ba pare dafa war a del dafa war a wax leen nan wàññi fariñ pour nu mën a wàññi farine bu ñu wàññi farine ñu mën a gis seen bopp pour ñëpp mën a gis seen bopp population mën a see gis seen bopp loolu la. Euh, donc euh, comment dirais-je. si ban cadre plutôt euh, boulanger yi euh, si lañ mën a yokkee mburu bu weesoo problème mu bi farine bi nga souligner léegi. bu du loolu ñoom ñu lu mën a yokk mburu mooy seen problème mu euh, courant courant aussi euh, xam nga ne ma dafa am loo xamante ni boo xamul la xamoo. Mm-hmm. courant aussi dafay jouer impérativement si defaru mburu parce que courant dafa coûte cher coûte cher mais mais président Amadou ko démb boulanger nan dem si oyofal bi. ah le gouvernement tey lu mu def wàññi na courant bi si woyofal bi ñoom leen tere ñu dem si woyofal moom wax na ko woyofal bi dañ si gis seen bopp mais woyofal boo demee demandé woyofal ñu defal la defal la woyofal donc loolu moo tax donc impérativement mënuñoo wàññi mburu mi mënuñoo wàññi mënuñoo wàññi mënuñoo yokk mburu mi parce que loolu yëpp ñu na la bu leen wàññi lay farine wàññi leen mburu mi donc parce que boo xoolee dafa am ce qu'on appelle la baguette sociale baguette sociale bi leen moo koy composé farine la ak ndox ak xorom ak levure parce que dañu le blé est une matière vivante l'amande de blé mooy c'est-à-dire que saalu blé moom mooy farine cette enveloppe moom mooy son boo xoolee son boobu dañ koy jël di ko defee aliment bétail aliment volaille di ko jaay ñoom leen neex ñoom meññ yi. Mm-hmm. teg si encore boo xoolee fariñ bi fariñ bi ngay gis nii farine bi ngay gis nii farine bi dafa am Euh, dafa am si blé dafa am ñaari fraction dafa am fraction lourde fraction légère gis nga fraction légère bi rek moom lay defaree seen farine biscuitière rek yooyu fraction lourde moom lay defaree seen ay euh, farine euh, farine fleur moom la ñuy woowee ay biscuit ay ay farine pâtissière et tout ça mais boo xoolee ñoom déjà amul pertement dinañ jël seen blé jël seen farine suñu paree jël enveloppe bi daal di koy ñëw yóbbu ko yóbbu ko si euh, yóbbu ko si euh, yóbbu ko dem defaree ko seen aliment te ñu si liggéey amuñu dara te loolu yëpp benn circuit boo xamante ni c' est des c' est des Europe c' est des c' les statuts des c' est ñoo koy jël xaajoo jël ko tënk ko bu ñu jëlee encore yóbbuwaat ko Europe donc si loolu ñoom ñoo mën a démbali boulanger yi wàññi seen farine bi bu nu wàññee farine bi ñoom ñu boulanger yi mën a gis seen bopp mën a mën a kii sinon dañuy yokkaat fii mbur bi te yokkaat mburu bi du dëgg du yoon loolu moo tax ñu mettre en place beneen pétition. ñu mm-hmm. ngi ci internet bi. ñu ngi koy signé depuis barki démb ba léegi te gars yi ñu ngi koy signé signature bi commencé na. bari ngeen lancé pétition bi en fait ñu lancé pétition bi pour que nit ñi mën ko signé pour dire noo non à l' augmentation à la baguette du à la baguette du pain c'est-à-dire que mburu bi kenn waru ko yokk. dafa war a yem cent soixante quinze mbuur mi sax tey war na mën a yokk ba mën na mën a wàcc ba cent vingt cinq mais comme ñu ngi cent soixante quinze bu ñu ko laal parce que bu leen bàyyi nii dañuy def comme bële passé rek juste avant élection yi ñuy coow tuuti bu ñu coowee rek ñu xëy benn jour ministre bi génn Assome Diatta moo génnoon ba mu génnee daal di xëy yokk mbuur mi à hauteur de cent soixante quinze franc bu nekk mu teg si vingt cinq franc mu nekk xaalis bu bare boo xamante ni nit ñi dañ koy sentir dafa metti trop moo tax ma ne suñu pétition bi lancé ko pour wax Sénégal yi ñëpp nañ ko signé nañ ko signé bu ba pare bu ñu war a def marche bu ñu war a def leneen dina ko teg te naa la xam benn affaire rek gis nga nekkuma mburu dafa nekk sensible gis nga Tunisie vingt cinq dix franc lañ yokk si mburu mi dafa taal dëkk bi parce que merci beaucoup madame may fàttali ni Mamadou Niang vous êtes meunier de formation nekk responsable de production pendant plus de quinze ans mm. euh, ci Moulin ñu lay remercier nekk aussi euh, ki nga xam ne moo lancé ab pétition pour ñu bañ a yokk mburu mi jërëjëf Mamadou Niang merci